تقى القاق درا تريد بقدرة القدس يا قادر يا نفست أمك درا ومنفردا بالملك والمجد يا قادر يا nee na mu ngi leen di nuyu ci làmmiñu xalifa bi Cheikh Abdoul Bachir. waaye dañuy liggéey rek. mu ngi leen di nuyu ci seen tur. teew si la. mooy màggal guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. da ngay wax it bismillah. nga xam ne bis bii nag ñun ñëpp ñoo ko bokk. képp koo xam ne jullit nga. bis bii am nga ca jël. bis bii am nga ca jël. ñun nag ay jullit lañ. nekk ay jaami yàlla. nekk ay jaami yàlla. gëm suñu yonent bi rasulillah. gëm suñu bi ci sariyaam. topp topp ci sunnaam seen waalidu moo daan màggal rasulillahi sallallahu alayhi wa ci bis bi de bam bi bàyyeekoo nag ñoom ñu nekk ak njabootam ñoom nag ñu topp te yoon wax allo allo bay toppee ci yoon wayit kuréelam bi nga xam ne moom lañ yaakaar moom lañ topp moom lañ def wasiila ñoom ñëpp nag da da ci ànd loola tax ñu koy def guddi gum fonkoon nangu xoon na ciy sonn te xalifa Seex Mamadul Basiir toog foofu la daan toog na jàkkaarloo penku bi da duñ ñu la bi ba jaget bi fen ñu jàng kaamil mu doog a jóg dugg te néeg ba mu ne loolu la nag ba tey mu ngay màgg kat ba jëm kanam ba defee na ne dana yegg foo xam ne dana yéemu lool te moom moo ko fa sasoon ca Madina foofa la ko njëkkee mu ne booba sax moom mii dee la wax xam ne boobu juddoogu mu ne dafa dégg ñu koy nettali rek ñu ne bis booba bu ñëwee ñoom it duñ ànd ak seen sago feek bis bi wëyut xam ne seen ndigalal bàyyi la fokk nag danañ ko def ak nañ ko mën a defee fokk ñu def ko mu ne bis bii daal fokk danañ ko def fokk nag danañ ko màggal comme noonu ko daan màggalee fanaan ci mbaar mi ba bët ba jant bi fekk ñu jàng kaamil mu daldi dugg néegam ba tey insha allah bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa ku ñu lañ koy màggal fokk nag danañu nettali benn ñu nettali ci xaalimul xayb fi nga xam ne fi lay jaaree ci ay anwaar ba ñëw ci xaalimul aji saat loolu lépp nag danañ ko ko nit ndax ñu gën koy xam ndax Moustapha sallallahu alayhi daal kenn du ko réeree boo ko réeree réeree rek da nga des gannaaw te moom kat mooy sariya mooy chariatul ahmadiya ba mu xasee ñëw bépp charia folli la ko moom rekk kat mooy charia terewut anbiyaaw ak mursaliina yi ñi nga xam ne ay nawlem lañ ci kaw mursaliina ci kaw anbiyaa dañ leen may allo allo. waaye Muhammad yàlla kat moo def moo jiitu mooy xaatimul anbiyaa'i wal mursaliina moo leen jiitu ndax yàlla kat moo ko tànn jox ko loolu def ko kat mu nekk mu jëm yonent kenn kat du ko wuutu ñu naan diw sàngam dana lekk yonent loolu mu ne yonent bi daal ba mu ñëwee ba dem benn la fi ñëwati mu ne ca doomam Ibrahima mu may tollu nii la ko jabbaar subhaanahu wa taala hebal Jibril mu ne ko sa gune gii dee ndax bu dundee dana nekk ab yonent te yow kat sa risaale gi kenn du la ci mu fàq ba xale bi dund sëriñ bi daal mu ngay layu ñëpp da wax it bisimilahi na ñëpp teewlu ñu tuuti ci juddu rasulillahi sallallahu alayhi wala maqaamam maqaamam baatin ba mooy jotat ba da dikk ci xaalamul ajsaar jaar na ci ay u yoo xam ne kenn mënu koy xam kenn mënu koy teg ba nekk ci aalamu ajsaar ba nekk ci aalamu ajsaar nekk ci nabiyul mursal nekk ci nabiyul mursal dañ ci mos tuuti guddi gi sori na waaye ñu mos ci tuuti rek Allah muy demee solo. Ikrahul Abbas mu ne ba nga xamee ne na. Asa wa Jalla. Xalqa mawjudaat. Xalqa bind mbindeef li mu amee lépp wa qafada mu dal di tàllal arda suuf tàllal suuf la tàllal suuf bëgg a tàllal suuf dal di yëkkati asamaan lëngëm am nguufit ca leer ak yonent waxta way wax mu ne xalaqahu llaahu min nuurin bi rahmatihi muqassasan biha laa'iban wal qatami xalaqahu llaahu min nuurin bi rahmatihi muqassasan biha 된것 같아요. mu ne ko defee sëñ bi dafa wax te taalifam mu dëppoog hadis mu dëppoog hadis damir jaagat yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min nuurihi kel yaram min nuurihi kel yaram ci yermande bi rahmatihi ci yermandeem moom mat bind nañ ko ngir yermande ci leeram ngir yaram bindee mu xasasan da da kuñ jagleel bi xalaa ibat bi ci koole tàmbali wal xatami ak ko war a bu ko defee yonent bi tàmbaleet koowe ba fa koowe xem waxatal mi ak mottali mottali ga koowe ba jeexal koowe sëriñ bi dana wax ci woyoo ba tey mu ne xaddayta amraka مهجنا لقدوتنا مبدأ خلقك يا أولياء الله أتيت أمرك أمه إذا لقدوتنا مبدأ خلقك يا أولياء الله إذا لقدوتنا مبدأ خلقك يا أولياء قضيت أمرك همه إذا لحوت ودينا مدبر خلقك يا هواك يا قضيت أمرك همه إذا لحوت ودينا مدبر خلقك يا هواك يا بدأت والدي مني تعلمت علمه مددا لقدوتنا مبدا لخلقنا يا نوال يا هديت امرك موجدا لقدوتنا مقدور خلقك يا نوال يا خير خلقك يا ربنا أتيت أمرك موجدا لقدوتنا مقدم أمرك يا ربنا سيدنا عمر ناو مجاهد تيرم mu ne xaddayta xatte nga yow yàlla subhanahu wa taala am raka sa mbir mi wala sa ndigal moo ji dan mu da aji xamal li xolwatina ñeel suñu loo teew te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mabda'i xalqika yonente bi nga xam ne mooy suñu roy teew te mooy tàmbalee mbindeef yi. te mooy tàmbalee mbindeef yi. waaye ñoom ñëpp. mbindeef yi yëpp. dañ leen bind ci leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yaa awalu. yow aji njëkk ji. mu ne badatahu rabbi. mifdaalan tuhallimuhu haqaa'iqal mulk. badatahu rabbi mifdaalan tuhallimuhu حقائق الملك يا أول يقام mu dellu wax ca wuyu ñaareel ba. mu ne baddatoo tàmbali nga ko. mu ne ko. rabbi yow sama borom. rabbi yow sama borom. mu tëgg ko si xottu Moustapha ji. mu tëgg ko si xottu Moustapha ji moom. xam na naw. xam na naw. bu baax a baax. bu baax a baax a baax a baax. xam na nu sóor. mu ne xam na mu sóor. xam na bayaan. xam na xaroot. waaye fañ ko ko jàngal. waaye fañ ko ko jàngal. waaye ña ko ko jàngal moo leen dàq taalif moo leen ko gën a xam moo leen gën a xam xarab fam ko tëral ak fam ko jëmee mu ne ko bind nga ko mu de aji gën danga ko xamal moom rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaqaa ikkal mulk dëggi dëggi nguur yaa awalu yow aji njëkk ji yaa allah yow yàlla mu ne ko lakka ñeel la yow yàlla hijaabaani ñaari kiidaay muxtaaru ka sa muxtaar bi tam mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sa fotullaa te rasul tànneef muxtaar kiñ tànn dox na diggante dox na diggante yàlla ak mbindeef mu nekk benn hijaab wakkil li yaawuka sërëy bu nekk ñaari hijab yaa awalu yow aji nekk ji yaa allahu yow yàlla mu ne salli wa sallim ba ci tamit alayhi salmadan abadan wal ali wa sahbi yaa awalu yàllaaw mu waxaate woy woo ba tey mun abrastoho haabidan والخلق في حتم ظهر المعارف يا قوي يا الله أرسطها بك وقلق من عدم بر المعرفة يا أول يقام أرسطه هابتا والخلق في هدم ظهر قصته عابدا والخلق في خدام فارمها رفايا قوي يلا بدات ربي باجلا وسمرة أصل الخليقة يا قوي يلا أبرزته هابدا والخلق في خدم بارمها رفايا قوي يلا ni yo yàlla bu wax ja ba tey wax ji nga xam ne fa dëppoo waxi sëriñ bi nga xam ne dafa dëppoo xadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne abrasto feeñal nga ko aabidan mu ne sab jaam waxal ko mbindéef yi waxal ko mbiram mbindéef yi jumlay xaal la de fii xatamit ñu ci ñàkk tànn nga ko génnee ko mu nekk sa jaam te booba mbindéef yi bindagul dara nga def ko bahra maarifa mooy génne xam-xam yaa qawiyu yow aji dëgër ji yaa allah abdatoo tàmbali nga ko mu ne abdatoo tàmbali nga ko faadillan muy aji gëm warul mbir moom yonent bi sumratahu ay surgaam lay yónni nga yonent bi yonent yi ci des topp ci koom nekk ay sugaab aslul xaliqati mooy cosaanal mbindeef yi xëy cosaanal mbindeef yi yaa qawi yow yaa allah yaa allah yow yaa awalu man kaana maxluqan wa saa maddatin habibuka albaab awalu man kaana maxluqan wa saa maddatin habibuka albaab yaa mudi wa yaa وسامة حبيبك الباب يا مجيب الجلال وأورق الخلق من مشارق البديع وأورق الخلق من مشارق البديع وأورق الخلق من مشارق البديع وأورق الخلق من مشارق البديع maxlooxan da kuñ bind ki nga njëkk bi ni yow yàlla wasaa madadin te mooy borom ak tëbbe gi ku xam yàlla ci moom nga ko xamee ku joti ci yàlla ci moom nga ko jotee habibuka mooy sa soppe bi albaabu kër bunt bi nekk na Abdullahi nekk Habibullahi min haysu maa huwa nekk Abdoulaye. dana nekk Abdoulaye. te jaamu yàlla. fukki junne xat ak mu tudd Habi Abdoulaye. gannaaw ga. la ca fukki junne ñaar. mu ne ko nag. léegi nag yaay Habibulahi. moo tax ñaari tur yooyu. ñoo jakk Abdoulaye Habibulahi. abdullahi doon na min haysu laa huwa habibullahi yàlla moo ko sopp mu sopp yàlla mu tuddee ko habibullahi mu ne wa awraqa faboona xalqu mbindeef yi min asjaari xilqati yi ci gi nga xam ne ci lañ bind yonent bi garab gi nga bindee xob ya mbindeef yi mbindeef yi la af naa noxaa bànqaasi xob ya rul yonent yi la yaa mu diiru yaa aji tàmbali yaa allah yow yàlla kon nag deey mu ne kon kat man naa woo man seen ajo ma ndaw ne tawalata juddoo na xal ko mbindeef yi men wudin ci koy sopp gi wasiiran dinde boromam njub gi te mooy rasulullah sallam xayral xaliqati kërikati mi dem yaa mubdiyu yaa allahu yaa salli wa sallim alayhi sarmadan abadan wal aali wa sahbi yaa mubdiyu yaa allah mu dellu waxaan ba tey de awalu man kaana maqduuran wa saa adabin xayral bariyati yaa qaadir yaa allah يا قادر يا قادر يا الله أول من كان مقدورا وشاء أدب خير البرية أول من كان مقدورا وشاء أدب خير البرية يا قوي يا أول من كان مقدورا وشاء أدب خير البرية يا قادر يا أول من كان مقدورا دورا وهامة خير البرية يا قادر يا أول من كان دورا وساعدة خير البرية يا قادر يا mu ne ba tey de njël bi nag yaa xam ne nekk na mak doora na kuñ dogal wasa adabi na boromam tekki ndax adabani rabbi fa ahsana adabi loolu yëpp dañ moo ko wax moo tax adabi mooy borom ak tekki xayril bariyati gën a gën ci mbindéef yaa xaadir yow aji dogal allah yow yàlla dama te xalaxta xabtaka يا رحمن يا سندي في مساري وفي عوارس يا الله الله تعبتك الله تعب خلفت عبدك خلفت عبدك يا رحمن يا سندي في مظهر الوصف يا وارث يا الله

الربي في مظهر وزفيا وعارف ينا جعلت زاريا في كل مظهر جعلت زاريا في كل مظهر جعلت زاريا في كل مظهر جعلت زاريا في كل مظهر mooy rasulillahi sallallahu wa sallam yaa rahmaanu yow aji yërëm ji yaa sanadi yow sama wéeruwaay fii masaaril wasi safeeyukaay melo yi safeeyukaay melo yi wuutal nga ci rasulillahi sallam muy aji loolu lépp yéen bi salaay salaam doon na mu ne jaatoo def nga ko jaariya mu ne ajiroya fii kulli masari ci lépp loo feeñal lépp loo feeñal buñ ko xoolee rasulullah salaay salaam dañ ko gis bañ ko gisee ñu ne ah waaye boobu nag xam naa yeneen diw boobu fa xam lu nekkaale yàlla Seydou Adama la déedéet ah loolu wax bi dara la bi ati wéetal ati wéetal yàlla buñ ko dee gisee jaam la fa de waaye dugub bind fa dara de waaye moo la ati wéetal yàlla moo tax mu toog mu ne jaxaatoo saariyan fii kulli masari yi waaye bind na lépp lu yàlla fay koy bind Mamar Sa Debbo mu ne waaye boo ko di nag danga gis ndax mooy jaamam bi dal mooy jaamam bi bëgg waaye boo ko gisee mu wari aji wéetal rëbb yow sama bopp yaa waaris yoo andi noonu boo ci gisee Mouhamad du wute dara la mooy ab jaam bu dee at yi wéetal yàlla mu ne dégg nga ni waxee mu ne sëriñ bi xam na rek mu ne sëriñ bi xam na rek mu ne Assa Dóor yónni nga ko waarisam mu da aji doom kulla ahibatihi képp koo xam ne yonente nga wala nabiyu nga ngay soppe yàlla yi ñoo de soppe yàlla yi jula doon moo di la tax sam sam xalaay mooy kental mbindeef yi moo tax mu doon lu ñëpp mu ne yooyu tànn mu ne waa njaw moom mu ne baayam Seydi El Hadji Omar daa wax lu mu wax de mu wax yonent bi ne ko mu ne ko yónni nga yonent mu doon la bépp yonent ak bépp koo xam ne sopp nga ni ki lan bi yaa wooye musal yi day ñoom la yàlla tànn yónni leen mooy ahibat yi li tax mu dox li tax mu dox nañ ko ko mu ne rajo ma ndaw mu ne samsu xalaaiq ndax yéen bii mooy mooy jantal mbindeef yaa waaris ay doon yaa allah ya mu ne dajale naa dajale maa ma ne aji bëgg senkat suñu tànnee naa ko gis janoo moom mu fekk ci man ni jant ba fekk moom ndax moom ahlil xaliqati nag mën a deleer mooy aji bëgg mooy aji bëgg ci jàkkaarle suñu waaj suñu tànneer bi te mooy yàlla subhanahu wa taala mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahlil xaliqati kay tasaara mi ñëpp yaa waarisu yow aji doon ji yaa allahu yow yàlla mu ne dam ko defee ba mu ko defee mu ak boppam suy daal yu xamal ndaw dana nekk koo xam ne ca wóyal ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu xaatam mooy koo muy wax ngay dégg ngeen jàkkaarlee di xoolante moom la wax ca wéy wa mu ne ko wa anta ufusun wa kullu xalqin fii haddamin noorun badihon yutihon haqqa faqadami وكل خلق في أدم نور بديع أبيه أطاق ذا القدم وأنت وص وكل الحق في ختام نور بديع يبيه وهكذا الفرمين وأنت وكل الحق في ختام نور بديع يبيه وهكذا القدم Allah ginnaaw dana topp mu ngi aju ji moom sa yow ca wëyu maqaaman huboodiya palaaj bi di defaat dana topp xaq saa ki tamit nga boromam bi mu ngi aju ca maqaaman huboodiya di jaamu karaama wa shahaada wa ruhiyatu wa rahmatu wa rahmatu wa hilmu wa xeemu wa laqaaru wa sakaaru wa sabru wasit way yaqin loolu mooy maqaamal xubóot moom la waaji na ñaam xabir xabay daka mahmoodan wataaxataw qabla alxaraa'id xabir xabay daka xabir xabwatana siraataka alaqaya xabir yaqin xabir xabay daka mahmoodan wataaxataw

li xaaliqihi mahbubaka asla xabir humaydaka yaa xabir humaydaka mahmudan wa taahatuhu qabla alxalaayiqi mu ne ko solal sa jaam bi sa jaam ba xeebu bile sa jaam ba xeebu sile solal ko mahmud sa jaam bi nga tuddee Mahmoud nga xam ne yowmal qiyaam tagwaraa nga maqaamam Mahmoud mu tudd Mahmoud wataaxatoo ak jaamu gam na doon jaamu ca fukki hijaab yi ñaar hijaab ba ne jaar ca jaamu na la ca junne xat qabla al xalaaiq njëkk mbindeef mu ne Seydina Jow na mu koy ñaan hubooliya nga xam ne yonent bi salaay salaam jaar na ca mu ngay ñaan maqaama mool moo xam ne foog ko doon nan ko doon jaamoo ak frère mu ko doon mu xamal ko ko mu ne diis na de mu ne maqaam moom diis na de bu ko defee doona koo xam ne lépp loo xam ne ñaan na ko fekk na daf koo am ba pare da ko ñaan daf koy am ba noppi doo koy ñaan ngir réeral mbindeef bi fekk am na ko ba pare si si ne xay bi sa mbóotal kumba nga xam ne kenn xamul ko yi leer gi dem ba foofu ñu dagg ko ndax kese bi dafa gudd leer gi wax alhamdulillah fa qaala yàlla wax loo ñeel fa qaala lahu allahu ne wax ko ne ko ba nga xamee ne ci si jaamu la ko war a bëri haasa lii moo tax ma bind la wasamaytuka muhammadan minka ci yow abdawu laa tàmbalee xalqa mbindeef wa bika ci yow aqtimu laa motalee ruux la yonent yi mu ne waat di waxati ba tey mu ne ba taxta ruux laka bil muxtaari safwatinaa في عالم الروح يا رشيد يا الله بدأت الرسل لك بالمختار زبوتنا يا نبي روحي يا رشيد بدأت الرسل لك بالمختار زبوتنا يا نبي روحي يا رشيد يا بدأت الرسل لك بالمختار زبوتنا مختار ثودينا يا نبي نسيت يا بدأت الحب المختار ثودينا يا نبي نسيت يا بدأت رسلك بالمختار ثودينا مفتح ودينا يا لم الجسم يا رسيد يا فتات رسلك بالمختار ودينا يا لم الهيا رسيد يا فتات

mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kala ko tànneef fii xaalami ruuhi jaxaalmu ruuh ki nga bind jaxaalmu ruuh mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa rasidu ki nga bind jaxaalmu jismi mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne xatam rabbi mu suma borom rabbi bi ma boo ci gën sopp ki te mooy rasulullah sallallahu alayhi sa wot naa kan suy fii xaaral gis ni caaru ajisa yaa rasiidu ba mu ko defee ak boppam xaaj na leer ga sallallahu alayhi wa sallam mu xaaj ko ñeenti xaaj ma bind te xaaj ba njëkk ba xalawa ma bind te xaaj ba njëkk ba xalawa ba ñaareel ba mu bind ci xalima mu wax laaw ñeexal xalima ne ko kutub baatu baatu du kutub ba moo tiit ba xalima gi ngir ragal yàlla alfa sannatin junnee at mu lox junnee at moom xalifa bi mu xaaru wa yaa rabbi yow sama borom lan laay bindal mu ne ko bindal laa ilaha illa allahu muhammad rasulullahi في خلقه بدم فكتبه بند أولاد آدم من دوم آدم لسلبه كندقم من أتى لك تقر لها يالا أدخله متابلك جنة الجنة ومن عسى كمين لها يالا أدخله متابلك mu ne ummatu Ibrahima ummatu Ibrahima xeetu Ibrahima kasalik ummatu Moussa kasalik ku di jaamu yàlla ñu xaral la ajana koo xam ne jaamoo yàlla nag ñu tàbbal sama xeetu ya saanoon ba tey talu nag ba tey talu xalima bi ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di bind xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma waaye wax ne ku jaamu wut yàlla ñu ne ko amal teggin yaa mu ne ko xeet mu ne ko xeet lañ woo xam ne waaye ummatun muslimatun waaye wa rabbun xafooru xeet la woo xam ne bëri nañ bàkkaar xeer la yoo xam ne borom bi bàkkaar lañ waaye seen borom jéggalaakoon la loolu la far bind mu ne loolu la xale mu ne mu ngi bëgg a guddi guddi gi sori na bu ko defee ñu bàyyi leen ngeen jàng njàng wu neex ànd ak yar ak teggin ngeen jàng ko xam ne buñ daan jàng fii juddoo Franc dafa bu gëmee bu gëmee rek am na bu ne dof mu mel fay nelaw de dañ leen tafee tafee bëri dañ ne kanam mu gëmati ñoom itam lañ ca nekk lañ ca nekk rek lan nekkoon daal lañ ca nekk nañ jàng jàng bu rafet lam hayee lam hayee këram lam reeree lam nekkee lam teralee ay kanam lépp daal yow sëriñ bi yaa ko gërëm nañ sant nañ te ñaani sa taxawaay bi yàgg te gën a dëgër yàlla moo xame yàlla yàlla bàyyi diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg mu ne loolu moo seen ñam ne leen gërëm nañ sant nañ njaboot gi kenn ku nekk nag am na ñëpp daal gërëm nañ sant nañ mu ne mbooloo mi ñëpp nañ sant nañ dañ ñaan yàlla sa taxawaay bi daal yàgg yàlla boppam lim la def nga nekk xalifa Seydi Alaaji Omar Ndaw mu ne wallaahi man nga xalifa Seydi Alaaji Omar Ndaw mu ne wallaahi man nga xalifa Seydi Alaaji Omar Ndaw mu daan wax yaa koy wax de mu ne lan daan def yaa koy def lan daan gërëmee yaa koy gërëmee lan daan xeer seen doomu aadama yi yaa koy xeer lan laa gëstoo de seet njaboot de loolu lépp daal yaa ngi lépp lu mu daan def waaxu la di jàngi te dem ak dëpp yàlla lépp daan def yaa ngi tax mu ne sant ci loolu benn ci. nga xam ne ñàkkul ko ñu biñ la amee mu ne sant nañ yàlla gërëm nañ julli nañ ci Moustapha sallallahu alayhi wasallam gërëm nañ sant nañ bu mu ne lii daal yàlla yàgg léegi diir bu yàgg yàgg yàgg yàlla ko yàlla dogal ci xormaam ak barkeem guddi gi de nga xam ne ñu ngi màggal Rasulullah yàlla ko yàlla nangu mu ne guddi gii du ci ñaan ànd ak pas-pas ak ànd ak dëgër loo ci ñaan mu nangu kon nag la lay ñaan nañ julli ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam nañ julli ci salaatu ala nabi mu noppalu wasalaam mu ne nañ jàng faatiha salaatul faatiha Gracias. مبشر وصمير عبد الله حبيب الله سميع الله نجي الله كلم الله خاتم الله خاتم رسول مهين معجن مسكر ناظر منصور نبي رحمة نبي توبة حريص عليكم مظلوم صائر سيد كي مسور بصير مبصير نسير منكر نور مبين منير داعي مدعو مجيب مجاب كي حمي عدو ولي حق قريب من المامون كي كريم مكرم متين متين مبين مؤمن مسؤول سوق وطن شرمن سوق مكان سومسي سوق من متاه متين قدم سيدنا من مزرا فوزن ديار للمتن لاي حاجر لاي فرد الوطن تقلقق قادرا تريد بقدرة القدس يا قادر يدا نفست أمك قادرا ومنفردا بالملك والمجد يا قادر يدا